Welcome to GP Service. GP Service, vol direct. Nous accompagnons et livrons vos colis en un record d'une journée. maa la ko wax benn bés dong nga jot sa yóbbante ci dëkk yi ma les États-Unis et le Sénégal la Mauritanie la Gambie et le Mali. wàllum Cargo Express three days fast shipping maa la ko wax grâce à nos réseaux de partenaires vous bénéficiez de livraison express partout aux Amériques du Nord États-Unis Canada Europe Asie. et en Afrique waaw waaw ñetti fan dong nga daal di jot sa post ci njëg bu xéwale défiant toute concurrence am nañu tamit service d'accompagnement avec Teranga Shipping nous offrons des services d'accompagnement pour vos enfants et adultes maanaam njàqare jeex na ci képp koo xam ni sa doom mbaa sa wayjur wala sax sa proche day tukki te amul ku ko accompagne gunge ko ba dalal ko ci bile voyage du Sénégal aux États-Unis des états au Sénégal ngir bépp leeral ci yi ma leen limal contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations aux états plus 1 614 226 74 61 au Sénégal plus 221 78 475 89 42 ou plus 221 77 513 24 60 in Gambia 220 302 49 90 en Mauritanie plus 222 36 90 29 10 Sud Web www.teranga-shipping.com ak Teranga Shipping Service yóbbal bu gaaw bu ànd ak efficacité rapidité ak sécurité ñëpp seedal nañu leen gaawal tukki guddi fifi heure bi fi ñëw démb pour lal la yow tamit seen fit yi leen koo dalal ak guddi ngaay Dakar lu fi tukki guddi am yow tamit na xam naa nag jaaxal nga ma nag fifi nag luy daw bay daanu <laughs> yow nga topp ma kar kar kar renfort ndogu renfort ndogu waaye mag ji ragaloo de nii nga def nii da laa ko defee waxuma loolu de waa lii nag fifi hmm. bu xalaat kooru ren bii fii laa ko téye mbaa nii laa koy jàppoo ba dégg weer bi feeñ na bañu ci dara waxuma loolu sax de mais ana ñoom korop tabak ñoom baag ñooñu foo leen denc dañuy xaar ñu ngi taatu batar <laughs> waxuma loolu sax loo indaale man xam naa ni ba nga duggee ba tey amoo jàmm yaa ngi ci sama mbuus bi xamoo ci dara sax kenn damaa raw bu ma téewoon samay affaire nga ne lii xanaa sama yaay ma yónnee lii ci yow yow dangaa laajte sama yaay bi na yónnee dara solal ma sol koor gi jeex ma takkaat samay matériel yóbbu bu ma bu ma bu ma bugguma kaa kër gee lara mokk bugguma kaa ci fifi dama ko bëgg bañu ci dara de nii laa koy dëbbee wala na mu dem Qatar bañ egg Qatar. waaye ana borom kumba si ci kër gi. boo toogee dalee mu fekk la fi lëjle somle may ñu ma jàmm may ñu ma salaam xam ñu denc samay xam naa bu la fi dégg di ñëw. waañ waaye waxuma la ñooñu de sa nawle bi nga dëkkal ci kër gi <laughs> waaw walla écrit walla. écrit walla dégg fi rek waaye xam naa ne koor gi xam mm-hmm. naa dañ may xoñ rek ma gaañ. ñëw naa. ana ñoom côté fi renfort bu am jom wuy ma ay li ma leen pareer ren xama fi dégg nga leen di gis buñ la fi dégg da leen nga gis leen fi ñooñu rek renfort bu am jom cay sama rakk ci fifi ak am jom li ci abbaay dara du yomb ci koor gi maa la ko wax waaw waaw dëgg la ko bëgg àdduna man mës dara cum duma ko laal duma ko laal nii cum demee ñu ngi nelaw ña ngay kaa leen ko jaral nag góor gi nga naan ka dëgg la eh, waa copine waa yow nii nga wooree da ngay fo comme yow rek maa sa ginnaaw waa ana waa écurie bi laay xale yaa ngi nii Eva ngi nii toog bi pañe périg mu taw egg fifi la waaw naa la kenn xamul lu fi yaa sa poti si loo nekk yow dëkk muy làkk pulaar nii dana ko dégg waa ko ci loo lekk. waa lu may seen nii. fils. nam naa la de. duma ko laal. Qatar laa jëm Qatar. Hmm. koor gi ren nii laa koy dëbbee. yow bàyyi ma da nga ëppal nag. danga ëppal may ma tuuti ma relax dàq koor bi foofu la xoolal sama sama pël bi dafa ñàkk jom moom Casamance dafa jóg wuy ma laajal ma pël bi ba xam jóge na Casamance leer na ma ni wooru wuy ma ah, ah, wuy ma pël bi day woor ah, rek ma dinaa luloo koti mii di mii waa léegi kon ci kanam dégg waa ci kanam ma ci kanam du ko yàq maa ngi ñëw ale bisu ca caaw tëgg rek foofa toj xam nga xamal looy na tag looy kol noonu eh sama yaakaar kii ak a lëj le waaw mi ngi ñëw leen indi man fa ko soxla yi dëgër fit danga woor na dama waroon woon danga woor ah, ah, ah eh, waaw waaw da ah, ñu waxtaan xam nga tey le premier jour koor mm-hmm. léegi nag mënatuñoo génn mm-hmm. mënatuñoo dem fenn mbaraan bi léegi xam na la ñuy def mm-hmm. waaw léegi chaque jour. déedéet léegi pourquoi pas bi ñu def ko fii ci kër fii lañ koy defee waaye xam nga naka lañ koy defee. ñu koy defee dañ leen ñu ñëw ndogu si. waaw waaw xam la ñu dëbb kër gi ba mun nooy. est-ce ñëw tamit weer koor bi xale góor yi tamit. waaye doo bàyyi xale góor yi bëgg lu yomb bëgg fu ñuy ràcc. woo leen di wóor ñuy ñëw. boo leen di woo ñuy ñëw te dañuy ñëw sax. waaw loolu stratégie la xoolal ñi nga am ma eh, kool ñi ma am rek. Eh, foofu yow loolu suñu loxo ñun dañ koy. loolu stratégie la sax nag xam nga yow tàppet na allo del bokkutu fii rek man dinaa gérer cas bi. bàyyi mu traité loolu. man dinaa ko traité. dinaa la jàppale. suñuy ndogu yu baax fii après ndogu bi kër gi di wàcc. du doy foofa toog. kay ko defee ñu préparé. ko bi mu ne dina indi jàllale. réew neexul nee na mu ngi ñëw nañ ko xaar. waaw d'accord bu ko defee sama mbaraan bi ñëwee mu jël ma sax dama war a dem ville vite fee ñëwaat. maa ngi fee man damay eggale añ bi. yow nee na ma néew ma.